asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi ñu ngi leen di ziar bu baax di leen nuyu di leen xam ne ñu ngi fii tey ci géejawaay ci VDN plus précisément fi VDN géejawaay bi rond point bi jëm euh, Malibu diggante am Malibu di jëm ba yëmbal fii ñu wax bi waral coow bi am fan nii si littoral bi tam mu rogalaat jóge corniche bi ñëw ba fii nii ñu wax ni dañoo jël ay suuf jox ko kii jox ko magistrat yi jox syndicat waa impôt et domaine jox ñeneen ñeneen ñeneen population bi am ñu si wàll lépp bokk ci li ñuy wax caxat-caxatee gi ñuy caxat-caxatee as suufu réew mi moo tax ñu ñëw fii tey ci géejawaay war a waxtaan ku ñuy wax sëñ Babacar Mbaye Ngaraaf waroon si xam waxtaan jëm ci lu waral loolu noonu moom en tant que conseil municipal en tant que homme politique en tant que voilà acteur acteur bu nekk ci société civile bi waroon waxtaan ak moom si ut ay solution waxtaan li waral loolu ak lan la ci lan moo ci xalaat moom en tant que habitant de géejawaay seet si woon tey suñu grand ñu Babacar Mbaye Ngaraaf di di acteur politique bokkoon ci gouvernement PDS bokk nekk aussi parti PDS nekk conseil municipal ici ak Guédiawaye yor ay kasket yu bari te moom lañu seet pour lu moom ak waxtaan. première question bi ñu leen laaj suñu Babacar nga lan gisee problème mu littoral bi. waaw xanaa d'abord di leneen dañ koy ñaawlu leneen dañ koy rafetlu. li ñuy ñaawlu mooy la fekk ay nit yi nga xam ne ñoom lañ jël suñu kàddu dénk leen ko jël suñu réew mi dénku leen ko quelque fois mu dem ba dañuy jàpp ni ñoom ñoo ko moom ba leen neex def ca ñuy ñaawlu également que di nit ñu war a sàmmee au contraire dañuy jariñoo waaye rafetlu bi maa ngi ko jëmale ci taxawaay bi Barthélémy Dias ak ñu mel ni ñoom am ndax am réew xëy na mënoo ni taxaw ñëpp dañuy mel ni mbëgg ñu mel. ñëpp dañuy nekk ay citoyens exemplaires ñëpp dañuy ànd di aar li ñu bokk di défendre li ñu bokk waaye soo ko amul aussi ñi nga xam ne ñoo bokk gëm-gëm nañu am fulaak fayda ba taxaw ba liñ jàpp ñi ni la war a demee te nekk lu baax lu mu jaral ñu nar a yàq rek boo ko jaralee ñu bëgg mu baax mbir dina mujj baax te boo la mi Dias taxawaay bi mu ci am ak ñi mu ci àndal Sénégalais yëpp war a mel noonu jàpp naa ni njort mën naa rafet. xel mën naa dal nañu am ngor rek ni ñoom buñ ñu gën a gore ba tax ñoom ñuy défendre mu jaral leen seen bakkan jaral leen seen coono ñun ñu bëgg tëdd suñu néegi di nelaw kon ñaari jàngar yu laa ci am di wax ñi nag loolu ñuy xeex ñoom xeexu sénégalais yëpp la ndax littoral bi ñëpp ñoo ko bokk dafa war a am usage communautaire ñëpp mun ci bénéficier waaye jaaduwul te ñu assister à sa privatisation mel ni li ñëpp bokk dañ ko bëgg a jël jox ko benn catégorie bu ndaw benn infime partie ñu koy jariñoo au détriment du grand groupe. boo seetloo aussi am na coow yu bari yu am jamono gi ici ak Guédiawaye jëm ci corniche bi ay lotissement yu ñu fi joxee yu bari mais avant ñuy agsi si lotissement yi dafa am ñu wax ne dañoo war a déclassifier filao yi nekk fii nii ñu dañ leen laajoo lan nga lan moo tax ñu war a déclassifier filao yi. parce que il faut ñu def la différence littoral. ak bande de filao bi fii ci Sénégal sama xam-xam bariwu ci mais su ma jàppee ca la ma ca xam muy ni tefes gi ba 100 ci kanamam loolu la ñuy wax littoral te fii ci Géejawaay li fi am ci ay dëkkuwaay ak am fi ci li lu ay nit di jëfandikoo fi ci gën a jege géej gi jàpp naa ni gàtt gàtt gàtt gàtt gàtt romb na 300 mètres ndax tali bi jaar ñu koy wax VDN. bi nga xam ne mi ngi jógee Cambérène ba Malika kër yi mu euh, digganteem ak géej gi gën gaa ndaw mat na 150 mètres te kër yi boo xoolee lu ci mel ni fi ñu nekk muy euh, Sofraco diggante kër yi ak géej gi rek ëpp na 200 mètres kon jàpp naa ni diggante kër yi fii ak géej gi romb na 300 mètres jàpp 400 mètres Kassalanetienne kon li ma gis bokk mooy ñun au niveau de géejawaay ba jëm Malika ba jëm Tivaouane Peulh amuñu fi un littoral qui est agressé li ñuy xeex te di ci ànd ak ñëpp mooy littoral bi ñu agressé te mu nekk biir Ndakaaru fii nag problème bi am ñun mooy problème mu bande des bi ñu doon agressé te bande des filaos bi tey dafa poser ay questions sérieuses ma bëgg ñu am ci aussi des réponses sérieuses des réponses objectif et des réponses responsables ñu débarrassé wu de tout subjectivisme ñu xool tey le débat que pose la bande des ban taxawaay la ci nit ñi war a am mais encore une fois en toute objectivité et en toute responsabilité li nuy wax bande des filao ñi ngi ko fi jëmbat ñi ngi ko ci ñi ngi ko fi inséré woon vers les années cinquante boobu ñi ko fi defaroon Sénégal ko indépendance dafa am benn rôle bu filao du jeu bu am solo muy fixer din yu fixer sable yi ba nga xam ni tey du ñu mën a dem di songu ah, tool yi fi nekkoon ñu wax ay cuvette maraîchère wala boog tax mu ngi leen jéggi di dem ci kër yi filaaw yi aussi am rôle bu ñuy jouer bu am solo bu ñuy wax brise vent maanaam ngelaw lu jóge ci géej gi ngelaw daal du mën a du mu du du mën a egg ci kër yi du mën a jël suuf si di ko di ko jañ di ko yóbbu ci kër yi ak ci ak ci cuvette maraîchère yooyu waaye itam ñëpp d'accord nañ ñi durée de vu filao yooyu dafa am fu mu yem ndax filao borom bakkan la dafay juddu màgg màgget de te durée de vie filao yi ñi ne nañ vingt cinq ans lañ ñi ne nañ trente ans lañu dégg naa sax fan yi passé ñu ne cinquante ans lañu waaye même bu nekkee cinquante ans ku ne xam ne loo xam ñu ngi ko jëmbatoon ay mille neuf cent quarante huit jàpp cinquante ba mille neuf cent cinquante quelque même bu dee cinquante ans moo seen durée de vie tey wax dëgg yàlla filao yi dañoo atteindre seen durée de vie te boo xoolee tey filaaw yi fi ñu nekk ku wax la yàlla xam ni nekkatul filaaw bois mort la dans la mesure où filaaw yi am na rôle bu am solo bu ñu war a jouer danoo jàpp lu ñu war a def mooy fexe ba defaat fii un reboisement maanaam restaurer la bande des filao waaye nag jamono ji nga xam ne dañuy soxla defaraat la bande des filao dafa tombeek mu am ñaari mbir yu ci xew benn bi mooy dafa am benn tali bi fa jaar muy VDN beneen bi muy Guédiawaye aussi nekk ci soxla yokk li ñuy wax son foncier pour mën a prendre en charge a la forte poussée démographique bi localité bi am waaye également aussi mu am ay infrastructures communautaires yu mu war réaliser te mënu ko parce que fa confronté à un problème d' espace. côté infrastructure yooyu wax noonu. la nga xalaat ci ne moom la maire yi war a mën a def fii buñ fi jëlee filaawo yi benn projet nga pour ko nga xalaat. bu ngeen di benn précision man waxuma nañ fi jëlee filaawo yi de dama ne filaawo fi nekk nekkatul filaawo nañ defar ay filaawo mais kañ dafa mooy lan fan lañ koy def man sama xel mu gàtt te ñi ma dégg ñu wax ñu baree bari mooy nañ ko def diggante VDN bi ak géej gi ndaxte filaawo yi également. que mu nekk fële wala leneen ah en tout cas nekk brise-vent parce que brise-vent yi am na rôle bu am solo bu ñuy waaye suñu leen bàyyee ñu nekkoon fi ñu nekk tey jii euh, fii ñu fii fii ñu mu nekk fii moom li ñëpp war a nangu mooy fii filao yi dee nañu nekkatu filao ala kulli al ñun dañoo soxla loo xam dafay nekk brise-vent moo xam mu nekk filao mbaa mu nekk beneen garab bu mën di nekk soxal nañ ko waaye comme soxal nañ ko. nañ ko def ci diggante VDN bi ak géej gi parce que d' abord dana tax mu mën a jouer rôle brise-vent bi doon jouer loolu lañ soxla waaye aussi dana tax mu mën a protéger VDN bi mais aussi dana tax benn xëcco ak benn débat jeex fi muy lan foofu filaaw yi njëkk yee nekkoon te xam tey nekkoon dañu ay filaawoo mais ñu permettre ko ñu aménager ko mu mën a dugg ci patrimoine foncier bu Géejawaay bu ci duggee nag dana permettre waa Géejawaay mën a jël en charge la forte demande foncière bi nga xam ne effectivement li ko expliqué mooy set poussée démographique ndax ab dëkk bu nit ñay yokku te dëkk ba nekk élastique bi mën a taw faaw nit ñi nangu ni dañ ko war a aménager ab dëkk mooy toxal àll dañuy wax ci àll bi war ne dañaan da ngay néew dëkk mooy toxal tool tool toxal àll foofu dem ci àdduna tay fa dëkkuwaay yi egg egguñu fa woon daa am fu ñuy yem jamonoy dox nit ñi di gën di bari ñuy puus nit ñi gën di bari ñuy puus nit ñi gën di bari ñuy puus donc su ma ñëwaatee ci sa question ñun li ñu bëgg mooy effectivement filao amatul géejawaay parce que filao fi nekk ay filao yu dee lañu su fekkee dañoo bëgg effectivement ñu am cette barrière végétale pour satisfaire les préoccupations environnementales nañu am benn programme wala benn politique xam nga ñu ko tuddee reboisement xaw ma reforestation mais en tout cas war nañ mën a jëmbat yeneen filao comme nag dañoo nekk ci soxla jëmbat yeneen filao te am na ci diggante bi ñaari mbir yam benn bi mooy dafa am benn feneen bu fi jaar war nañ ko protéger nañu jël filao yi wala xam lu muy nekk en tout rek nañ ko jëmbat diggante VDN bi ak filao yi dana protéger un VDN bi protéger wala en même temps kër yi waaye aussi dana permettre mais Guédiawaye mën a noyyi ndax fii filaaw yi nekkoon danañ ko dugal ci espace foncier bi aménager ko mu mën a permettre àndoo yi nañ ko nangu aussi ñu mën a def seen ay infrastructures yoo xam ni am nañ ko te ñu ko def te war nañ nag relever les défis de lacte acte trois de la décentralisation. boobaa est ce que njëriñ gi géej gi waroon amal population bi si maanaam ñu mën a am espace bi ñu am nii. mu ñi fi la ñuy defee sport waa Guédiawaye fi la ñuy defee sport fi la ñuy entraîner fi la ñuy fi reposer woo mhm. est-ce que boobaa ak Firaaw dinañ gën a mën nekk non waxuma ñu def ay kër de dama ni hmm. mu nekk ci patrimoine fossé mais boo demee am na zone yoo xam ne ay zone pourquoi ma ne la comprendre ma question bi parce que loolu gisuma lan lay yàqal population bien au contraire hmm. ndax suñ ko defee dinañ fa def yoo xam ne askan bi koy moom rek parce que Guédiawaye dégg naa fi programme projet yoo xam ne par exemple ni université bi université baax la dégg naa fi marché yi ñu fa def marché bi baax na dégg naa fi piscine bi ñu fa a def baax na dëgg naa fi ay effectivement ay lieux yu ñu aménagé pour que mën a permettre aux jeunes de pratiquer du sport parce que tey su fii suñu ko reboisé mais li nga xam felaay fa ñu nekk ñu jëlee ko fa dañ fay bàyyi ay espace yoo pour sport la sport espace de loisir dégg naa fi benn salle de spectacle bi ñu ko def loolu baax na donc lañ koy defaat nekkul ay dëkkuwaay de waaye it bu ca dëkkuwaay mu ne am man de du ma gêné dama gis ni géejawaay fii filaaw yi nekkoon bari na am na cité enseignant am na waa kuddu am nañu comico mooy fi yi nekk am nañu sones am nañu euh, gendarme yi nekk mooy fële ci kaw booru golf te yooyu yëpp ay nit ñoo fa dëkk terewul la far nekk ci espace vert nekk na fa kon gisuma Euh, lan la loolu mën a yàqal mën euh, na mën a mën a mën a yàq war parce que li nga wax léegi nii suñ suñ Babacar bari na liñ fi mën a def kon mais comme boo jugee diggante Malibu ba fon ba ba yëmbal bi nii et lotissement yu bari ngi fi am na ñu ne dañ ko jox ay magistrat jox nañ ci ay waa impôt et domaine est-ce que ragaloo ni même buñ di même dindi filawoo yi pour def ko doole ko ci ajouté ko ci patrimoine foncier wu Guédiawaye popula popula population bi est-ce que yaakaaroo ni boobaa. est-ce que population bi dina si jot. loolu nag moo war suñu xeex et foofu nga def benn précision man bëgguma stigmatisation parce que man ci wàllu liggéey enseignant mooy sama liggéey te enseignant yi am nañu fu ñu leen jox ci Tivaouane Peulh tey jii gis naa aussi enseignant mi fi leen jox ci Lac te bëgguma waa Lac Rose sax na ni pourquoi ñu jox fay enseignant wala waa Tivaouane Peulh pourquoi ñu jox fay enseignant magistrat ay sénégalais lañu encore une fois Guédiawaye fii am na cité enseignant am na cité douane am na cité SONES am na cité comico militaire yi am na sofraco am na cité santé kon aussi suma mu mënee nang ñoom ñëpp ñu jox leen fii man vraiment ça ne me gêne pas à ce que magistrat yi parce que am na ci ñoom ñoo xam ne ay doomu Guédiawaye lañu tey Sénégal nation la ni nga mënee gis ñu jël enseignant yi tey jii jox leen ZAC bu Louga mbaa jël ay. Euh, euh, waa hôpital principal seen coopérative jox leen euh, euh, ab sac bu nekk Saint-Louis noonu aussi laa war mën a nangoo ñu jox fi keneen leneen kañ moo jaaduwul mooy mel ni dafa am ñeneen rek ñoo war a am waaye ñi dëkk Géejawaay war ñoo am dara. parce que loolu kon loolu c'est une situation qui est factuelle loolu lu gis la. loolu ñuy xeex li ñuy xeex mooy ñu bàyyi cette discrimination négative. non du du nekk jël di jox ñeneen te Géejawaay nekk fi soxla lu mu bëgg def pour askanam yëpp. te ko am loolu moo jaaduwul. est-ce que yéen yéen waa Guédiawaye dem ngeen fi ñu joxee fi ñu joxee suuf yi est-ce que da ngeen a vérifier carrément que ni suuf yi daa am ngi ko jagleel ak ñoo xam duñ ci am accès. waaw tu as posé une aussi loolu moo tax ma ni dafa am depuis un certain moment depuis un certain temps benn plan d'aménagement boo xam ne en tout cas man je suis conseiller municipal. Hmm. Euh, présenté nañ ko ñu càmbar ko càmbar ko ay yoon yooni yooni yooni yoon te gis naa ni loolu suñ ko defee. dana mettre fin à cette discrimination négative que nous subissons depuis un certain temps parce que bu njëkkoon da nga daa dégg rek jox nañ cité fii jox nañ cité fee jox nañ cité fële te ñi fi nekk tey muy nos collectivités locales su ñu amee un programme wala un projet bëgg ko fi def ñu ko def état daan leen xaar leen te état bi leen xaar la mooy dagg di joxe moo jox berte moo jox magistrat moo jox enseignant moo jox keneen moo jox impôt et domaine kon tey li ñu war a mettre fin mooy état bi def ca kaw saa bu bëggee def yëfa moom mu def ko te ñu lekk suuf mooy le pouvoir local luñ bëgg a def ñu ko def état état naan leen xaareen loolu moo jaaduwul te loolu la ñuy xeex. donc euh, discrimination bi nga am est moo am moo moo tax moom lu ñuy xeex ñun. maam am na ci diggante état bi nga xam ne moo mooy ah. discrimination bi nga wax nii. moo koy def su ma comprendre ne c'est bu baax état moo koy def justement état bi. je donne un exemple très simple marché bu bees la commune de Wakhinane Nimzatt où auto suis conseiller moo nekkoon la principale source de revenu de la dite commune ñu am ci xëccoo ñu ak waa Djiddah Thiaroye Kao yoon àtte la commune de Wakhinane Nimzatt perdre ko au profit de la commune de Djiddah Thiaroye Kao ñu tourné la page commune bi di ñafee ba am financement pour def beneen marché mais amuñu espace bu ñu ko defee am na fi li ñuy wax benn salle de spectacle boo xam ne dañu gisoon ni euh, géejawaay ak la banlieue lu ci baree bëri ci ñoom bu ñu amee programme ñu ngi koy yóbbu ay biir Dakar maire bi di lijjanti ba am financement pour def ko mais munu ko def parce que maire bi amul espace waaye léegi maire fi mu bëggoon jël état ca kaw ni ko mënoo koo jël. te boobee état mooy dagg di jox ñeneen loolu mooy suñu combat. donc suma la xoolee baax. ko ñoo da bokk si ñi nga xam ne dañuy da ngay dénoncer suuf ñuy jox waa yi ñuy joxe ni nga xam ne ku ci nekk am na ci te amu ci. nas li may la ñaari mbir la mu ngi dem si ñaari jàngat dama man gêné wu ma magistrat ak mécanicien yeeg ak gardien am ci xam laa la d'accordul ñu ne ñoom ñi ñooy am mais ñii fi dëkk duñu am te ñii fi dëkku si may leeral ni. laaj ñu pour am ay kër de waaye man bis bu doon gëj a am bi am kër du ma ci nekk dara xam nga lu mais parce que gisuma maanaam feneen nit bëri ci kaw suuf te nag gis naa ci doom man ñu ma ñu jox waa Géejawaay yi suñ ci waree am kër ñu am fii parce que xam nga sama sëriñ bu fekkee da ngaa juddu nekk sa kër papa ngay jàng école nekk fa nga dem ba génn école am liggéey nekk fa takk soxna nekk fa am doom nekk fa. soo ko mënee ak soo ko mënul yëpp sax la cee nekk mooy am foo samp kër te na booy samp kër mais doo ko samp ci asamaan si doo ko samp ci biir géej gi kon foo koy samp ci suuf si koy samp non a yi ma xam bokk terre air mer waaye léegi bu ñu soxlaa kër amuñu ko dañuy dem nu ñuy def est-ce que dañuy ñëw dëkk ci biir géej gi wala dem dëkk ko asamaan si suuf si la ñuy dëkk waaw comme suuf la dëkk nag soo ko mënee am fa nga dëkkoon moo gën pourquoi ñu jàpp rek ñu dëkk géejawaay suñ bëggee kër dañ ko war a wuti ji rek Sangalkam wala feneen bu fekkee il y a de l' espace qui peut mais dama leeral nag bu dee am na fi un espace wax mën leen profiter pour man di leen ko jéem a xañ ak soxor laa koy tuddee gisum mooy vraiment pour kañ war leen ko mën a xañ waaye nag li nga xam moo ñu gën a yitteel mooy li ñëpp bokk espace ay infrastructure yoo xam ni ñëpp ñoo ko bokk li mu ne la ci sànq université mën naa ci limal yu bëree bëri yoo xam ñëpp ñoo ko bokk mais yooyu suñ ko waree def def ko fii nga xam ne ay filao yi ñoo fi nekkoon te tey filao yi dee nañu ñu aménagé ko ba mu mën a jël en compte projet yi Guédiawaye am ñu def ko fi waaye aussi bu ci habitat xajee aw ma benn complexe aw ma benn chaîne à ce que ñu jox ay doomu Guédiawaye parce que gisuma lu may wàññi. li ma dul nangu daal mooy te loolu ñëpp di xeex état bi di ko bañ di ko joxe ba pare di ko jël di ko jox yeneen nit ñu koy def ay lotissement di ko jaayee pris yu cher ba waa Guédiawaye ko attan. li ma bëggoon foofu laa bëgg a ñëw sax si programme yi wax ba léegi apparemment nee nga am na programme yu bëri yoo xamante ni xaacim nañ ko pour war ko jëmbat si si Guédiawaye que ce soit muy nekk université piscine yooyu yëpp marché yëpp mën na nekk. mais hôpital est ce yooyu noonu yëpp. population bi xam nañ ko parce que puisque programme yooyu noonu c' est des programmes. déjà ficelés yaa ngi wax population population man population bi xam nañ ko bu baax. Hmm. population bi dafa dafa dafa ñu ko xam nga mën nañ dëkk Guédiawaye mais ah. comme yéen waa yéen yéen yéen waa politique yi yéen ñi nekk si communes yi yéen xam yéen am information yéen nii mais est que est-ce que problème yéen ni ngeen amee information boobu noonu bi ngeen ne c'est pour la c'est pour Guédiawaye population ñoo ko moom est que ñoom ñi jot seen information yooyu ngeen di wax noonu ah parce que euh, communes yi mhm. ña fa nekk ñu ngi tudd ay conseils municipaux mhm. ñu ngi jóge ci quartier yi la ñuy jógee quartier yi dañ leen yóbbu jox leen fa seen làmmiñ ak seen ay ndombay tànk parce que comme comme ni aussi du ñu nekk ñu nomé de bu nu ñàkkal fayda liggéeyu conseil municipal ndax conseil municipal falul boppam ay nit ñoo ko fal mu dem fa di yóbbu yitey ñooñee te léegi sax suñu këma yi ni muy doxee dafa am lu bees lu ci am loo xam ni mooy suñu amee ay mbir dañ koy waxtaane ca koñe ba pare soog a jóg indi ko ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci commune bi boo ko seetlu kaay bu ñuy def ay orientation budgétaire lu ci ëpp dañuy am waxtaan yu bare bari ñu waxtaan ba pare nag am yu bare yu ñu fa tëgg nag soo ko indi ci conseil municipal bi ne nit ñi soo ko mën nañ ca xalaat maa lay wax sànq ni almeeru Guédiawaye léegi sotti na bañ koy wut conseil ko wut askan bi conseil yi ñoom ñëpp ñaan parce que conseil yi ñu ngi bokk ci biir askan wi. mais loolu indi woon na coow lu bari. li woon lañ ca war a jàngat nag mooy bañ bëggee almeer état bi ni mënu ko parce que amul espace ba Guédiawaye gépp àndee ca jox nañ leen almeer ba ñu bëggee kon ba bu ñu bëggee leneen tamit suñ ko amul suñu la rek waaye suñu àndee ñun ñëpp doon benn la ñuy ñaxte aussi di ko wut mu nekk njariñal ñëpp et non pas njariñal benn nit mbaa ñaari nit askan ànd ci jàpp naa ne état ko def. mais est-ce que juba boobu ngay wax am na ndax bi ñu jógee léegi am na ay tool ñu romb si côté filao yi ñooñu am na ñu ne ay politiciens ñoo ko moom ay cadres yu nekk ici ak Guédiawaye basé ak Guédiawaye moom tool yi ñooñu lañ naan ñooy bokk si as politiciens yi nga xam ni bëgguñu ñu déclassifier filao yi. ay ay tool ay tool yoo xam ne ay politiciens ñoo ko moom. waaw léegi ñu ne. ñooñu ñooy ñi nga xam ne dañuy kaas si tool bañ fay jógee. maanaam comme li nga proposé nii nii gis nga ni mooy gën comme filao yi dee na. ñooñu mooy benn parti bi nga xam ne d'accord ñu si suñu déclassifié leen ndax seen étoo la nga fa te ñoom bu ñu bu ñu gëstoo léegi nii xamal nañ ñu ay borom ay borom doole lañ ñu ngi ci gouvernement bi ñooñ ñooy bañ ci ñoom ngeen di xeexal nii. Ah, loolu am na loolu loolu saa dafa am dafa am actuellement jiiñante xam nga tey boo demee procès da ngay dégg parti da nga dégg chaque fois tumalante mhm. ni mu amee ñuy wax ni. ñi nga xam ñooy tax di wax ay filao filao filao ñoo la gën a xam ne filao amatu fi waaye ñoom seen ay intérêt bopp la dañ fa am ay tool tool yi am ay ginaar yu fa nekk ay poulailler yu mel noonu dafa yar ay xar dafa bay ay naana noonu ñoo gis seen bopp moo tax bëgguñu lu jëlee fi filao yi jëriñ ñëpp ñu wax loolu waaye am ñuy wax tamit ni non non non filao ñii kaas nan ñii kaas nan filao yi ay filao yu dee lañu dañ faa bëgg terrain kon man du ma jàpp ci ay dégg naa foog naa li may xool rek mooy li amal nit ñi njëriñ li ma jàpp mooy ne quel que alpha un géejawaay amul problème mu littoral bu ñu agressé parce que fii tax ñoo littoral ay la yéwén dëkkuwaay amu fi hôtel amu fi dara amu fi la ca mooy gaa li ñuy ñaxtu mooy set bande de filao bi nga xam ne gis nañ ni état bi mu koy dagg di joxe moo xam ne set bande de filao dafa poser une question sérieuse un débat sérieux auquel tout monde doit participer en apportant du sien waaye nag objectivement une question sérieuse appelle une réponse sérieuse cette bande de filao nañu d'accord ni nekkoon na fi mais li fi nekkoon muy ay filao ni ngi implanté ko en 1948 à 1950 jëm kaw la durée de vie est aujourd'hui atteinte depuis très longtemps nañu d'accord ni li fi nekk nekkatu filao on n'est pas on n'a pas besoin d'être un technicien pour constater de visu que ni lii fi nekk nekkatu filao comme nekkatu filao nag te ñun soxoon nañu filao il nous faut impérativement ñu amaat filao wala lu mel ni filao lépp loo xam dafay jouer un rôle de brise-vent ba tax ñu def filao yi comme ala kuli al loolu dañ ko war am nañ ko def fan nañ ko def ci diggante filao bi ak géej gi pour que dina jël au moins avantage wu protégé VDN bi protéger en même temps aussi sunu kër yi waaye tamit dana permettre ñu am ay brise yoo xam mën nañu jouer rôle bi ñu xaar ci filao yi su ma déggee nag euh, sëñ Ngaraaf daa mel nii yaa ngi insisté sànq ba léegi ci ñu dëkk ñu dindi filaawo yi fi ñu leen dindi ginnaaw donte da nga ni filaawo yi dee nañ est-ce que solution amul beneen solution maanaam dindi filaawo ginnaaw dee nañ jëmbataat fa i filaawo ginnaaw dañ ko xosoon def i filaawo pare nga pourquoi kut kut kut nga bëgg ñu dindi filaawo yi indi ko beneen côté bi donte yaa ngi naan ay dooli dooli patrimoine euh, foncière mais est-ce que solution bi nekkul carrément bàyyiwaat filao yi fi ñu nekk. déedéet parce que ñu ko fa doy déet même suñ ko fa bàyyee mais xam nga ñu ne il xam la ma tax a jóg. li am solo mooy ñun li ma ñu yitteel du fu mu nekk fii li ñu yitteel mooy lan mu mën a jouer rôle bi ñu doon xaar ci moom mooy mu protéger avancer ak géej gi ak mu mën a protéger mu mën a fixer sable bi waaw dama ne ci diggante bi kañ am na lu fi xaw muy VDN bi waaw bu ñu jëlee filao ba fi ñu nekkoon la may protéger VDN bi kon. alors que mën nañu ko def ci diggante VDN ba géej gi bu protéger en même temps et la VDN également nos habitations en réglant un autre problème muy lan dañoo étouffé wu tey jii am na yu ñu bëgg a def yu bari wax na la sànq ay marché yu ñu fi bëgg a def man xam nga duma maire conseil municipal la su ma nekk ca ak ba ñu am lu ñu waxtaanee ba d'accord ci ba tënk ko lañ fa tënk daf ma engagé engagé les maires maa ngi maire sax ñu reyante parce que bak moo ngi am parti xam ne amul politique bu ñu xasee ba nekk ci nekk ci conseil municipal dañ faa nekk pour njariñal gox bi. comme li li ma la ko expliqué léegi nii li ñuy ragal xam naa li population bi di ragal maanaam mooy ñu jël gox bii nii déclassifié filao yi def ko def daa koy restauré fii nii mën na nekk mais jëlaat suuf si nga xam ne initialement bi ñu koy dagg dañ ko daggoon pour waa pour population Guédiawaye bi yëpp ñu jëlaat jox ko ñu ngi joxoon. man gisuma loolu parce que aussi quelque fois day am rek euh, extra extrapolation. même message maa ngi dégg sànq ne 35 hectares message bi tegewuñu leen nag ah. waaye encore une fois dama ne man magistrat yi am fii ak mécanicien yi am fii ak gardien amul différence parce que encore une fois ay citoyens sénégalais lañu mais man sama grande sœur ma nga kër Mbour est-ce que naa toog waa Mbour naan non non non lii waa Guédiawaye duñ fi am loolu ce serait dangereux pour nation le territoire sénégalais c'est un indivisible xam la ña dëkk di subir une discrimination euh, boo xam ni ñoom day mel ni ñoo war ñu fi am dara ñeneen ñi rek ñoo ñemee am mais bu ñu taxaw ci ni rek non ñoom di war ñu fi am ñoom ay saa war ñu fi am surtout que man démb na nga woon na ay ah, ah, moom si di enseignant beneen question bi nga wax sànq mooy nii euh, confiance population maanaam nekk ñu ñaari nit population bi ñooy ñooy conseil parce que population bi ñoo tànn ay conseillers fal lañ leen defal leen ma. bu à ba sangam ngeen ñëw ma ma xay ma seen liggéey léegi yow léegi nii ñemuñu ci suñuy liggéey dañuy population ko ñu koy dee population ko ñun bëgg nañu lii ak lii ak lii ak lii man yi ñu fi def kan ma ko bëgg population ñoo ko bëgg waaw ah, noonu almeri am fi marché population ko bëgg piscine population ñoo ko bëgg euh, université population ñoo ko bëgg kon gisuma vraiment maintenant nag je sais que ni au niveau national day am souvent problème conférence entre les populations ak les politiciens mais loolu il appartient aux hommes politiques de restaurer cette confiance léegi ñoom ak nit ñi ñu mën a wóor ah, li ma li wax politicien la rek. mais mais mais yow it yow it yow yow aussi homme politique nga. ici ak Guédiawaye. waaw waaw mais man non xam nga mu mu apprécier xam nga man chaque chaque élément mooy chaque fois question wu population yi ak du ñuy ñaar benn lañu population yi mais population yi mooy ñan population yi mooy mooy mooy mooy ñëpp di yow ci nga bokk man ci laa bokk ci la bokk kee dem ci la bokk ñëpp ci lañ bokk. maanaam nekkul xam nga tey bu ñu nee équipe nationale par exemple bu ñu euh, comme comme comme tey nga rek équipe nationale ak sénégalais yi équipe sénégal nationale mooy sénégalais yi daf ci am na ñu tànn ñuy jouer maanaam tey nekkul ñun ak waa France mais population yi mooy conseil parce que conseil population dañu bokk député population dañu bokk président population dañu bokk mais nag li am solo mooy ku def la lu yoon yaa ngi tax ñu ne ah léegi d'accord ñu ci waxtaanee ko man de wax dëgg yàlla gisuma problème boo xam ne am na fii bu tax ñuy wax mel maintenant nag c'est normal lii l'unanimité n'est pas de ce monde looy def dina am ñu d'accord dina am ñu d'accord mais bu ñuy insister rek mel ni géejawaay dañoo agressé le littoral le littoral de géejawaay n'est pas agressé. d'accord yaa ngi teg sa bët. mooy filaaw yi kaay di wax filaaw amatu fii ñun. dañoo bëgg sax au contraire ñu ay filao fan lañ ko bëgg a amaat nag nañ ko amaat diggante géej gi fii encore une fois ak VDN bi loolu nag wax naa ko ñetti xam ñeenti nañ ko nañ ko am si diggante VDN bi ak géej mooy mooy nekk si kàddu yu état bi mu xam dafay jeexal li muy def damay dagg di jël rek di jox ay ku ma neex yaa ngi mujj si politique bi xam naa ñu bàyyi ba ñëwoon pour ñëw daay def une émission carrément politique. waaw sant nañu baax di kontaan bu baax si sa disponibilité. xam nañ ni xam nañ ku jàpp nga. waaw lii pour am ni ça a été très très difficile jël na temps bu bëri ñu am ay ren di ko fomm di ko fomm ba tey jii. voilà ñu ngi lay remercier si sa si sa disponibilité.